Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Hein. Merci de louer du like, merci de louer des abonnés, merci également Gaël de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Box sénégalais en hein. fait pour les Montenegro 14 régions du Sénégal. Roukhouroukha di gorgoxa di ñu ngi leen di est à l'hôpital également ci la l'hôpital et ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñëw rek jàmm ñu nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi erreur judiciaire génne nañu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xare leen àjjana fi daw si gaay tey et nous, on avance ensemble dans la magie des Sport TV l'actualité en continu gars actualité bi gars yi ñu fas yéene waxtaanee li nga donc équipe nationale du Sénégal les grands chantiers yi nga xam ne nag moom la def remplacer voilà doublure pour qui nous avons donc Youssouf Sabali un attaquant gaucher aussi un ailier gauche ak également ak li nga xam donc Yenen ponk mais là tabou na gars len waxone encore une fois bës len ci lien bi dem ci Baba Show cette vidéo bi ñu def ah, ci li nga xam donc génération 2000 match quart de finale contre li nga xam mooy lu bëri ci wara xam vidéo exceptionnelle à suivre gars gars ci Baba Show bës leen ko mi ngi ma def ci lien bi def ko aussi ci description bi mais également ñi nga xam donc wa Manchester City gis nga len ñu présenté seen trophée yi ñu gagné dawa hein, Ligue des champions gars lay démarrer ñu waron tégal li nga xam mooy donc trophée aussi en lice mais daw ils ont voilà fait euh, le comment dire le complet ils ont fait gars carrément carton plein comme on peut dire pendant ce temps wa Brighton ba léegi ñoom ñu ngi togn ki xamna moy Onana ci bi mu jël et tout donc voilà. on a dal on a daal temps li ñu doon def dexeyaa daal la ko di def euh, euh, jamono ji on lui souhaite bon bon courage hein, parce que yombul ci nit ku ñu ngi jouer ci nga xam donc ci Premier League gardien pendant ce temps les nominés pour le meilleur joueur du mois donc d'août août ñi nga mois de septembre plutôt ah ki nga xamné donc di Ugarte Minamino ak aussi Tamari le ñu tabu pour tànn ci kenna Ugarte mi nga ci il est incertain suba ci match bi war a Paris Saint-Germain ak nga moy Borussia Dortmund première journée Ligue des Champions euh, Ugarte bi nga il est devenu indiscutable du côté du Paris Saint-Germain té keroog gis ko absenté pendant ça également Xavi Simons moom mi ngi def nga petit bonhomme de chemin du côté de RB Leipzig ñu bari nak nga Paris Saint-Germain bàyyi ko

c'est quasi bouclé donc ci li nga xam moy donc fekk ëllëg wala ginnaaw ëllëg la ñuy di confirmer li nga xam prolongation contrat am ak Barça ba 2028 wa Algérie n'a gars ak ñom bok Algérie dañoo bok de gënaaw bi nga xam nak nag ñëw nañ fi dóor Sénégal ñom nak seen benen jogante le 17 octobre fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre lay am fofu non ci Abu Dhabi ñu wara dajé nga xam donc les vice champions d'Afrique Égypte bu ñoom Mohamed Salah donc ñom fi nañ dal ñi ngi dajeeg équipe yi nga xam ne yëpp ñoo jël li nga xam donc coupe d'Afrique bi daaw demone ba final hein daal di fexe rek ba xol ñuy xolé Aliou nak également match Algérie bi comme je dis c'est un mal pour un bien madame défaite bi metti na mais nekk défaite boo xam ne bëri na ay jàngat bëri na également ñu xool suñu bopp lan moo ñu manqué te loolu tey mbir yi leer na dañoo door Brésil ñëpp nag. commencé woon naan non Sénégal ku mu téye ku mu téye ku mu téye match contre Algérie bi nag wanaan ñu ne des na lu bëri bëri bëri ay chantier yoo xam ne tey Aliou war na ko mën a. compléter l'humour et renforcer équipe am bu fekkee ne bëgg na la coupe d'Afrique bi moom c'est primordial parmi également ces chantiers Aliou Cissé doit revoir son effectif li wax rek hein. donc culture du mérite bi foog muy mais aussi Amna na joueurs sincèrement si nous continuons nañ nekkee seen club ak ñàkk temps de jeu Amna na yeneen joueurs pour daal di place et coupe d'Afrique comme je dis le Sénégal il va pour gagner d'abord ki nga xam Youssouf il faudrait que absolument nous trouver le doublure Youssouf Sapaly Sabaly malheureusement tant il blessure daf ko sonal depuis deux ans boy c'est loolu moko xaj dem ci coupe d'Afrique bi passé donc dafa am li nga xam donc euh, ay blessures yo xam ni blessure à répétition là et c'est un élément clé de l'équipe nationale du Sénégal parce que c'est l'un des joueurs les plus utilisés au niveau de l'équipe nationale du Sénégal bu fekkee né blessé wul donc aujourd'hui dafa soxla ko xam ni da koy nopal de temps en temps wala ko xam ni au cas où bu blessé ñaan ñu ko yàlla mën ko remplacer parce qu'on l'a vu que contre li nga xam donc Algérie ba mu on a eu quelques difficultés même bu fekkee né Crépin diata il a fait le boulot Crépin Diatta yaata pourtant arrière latéral donc day war aussi que on a besoin de renforcer ce poste parce que côté bob mom nek na fo xamné ne fa ay potentiel c'est vrai ñi ngi wax nak Formose Mendy te yàgg naa leen ko wax Formose Formose c'est un attaque c'est un défenseur central arrière latéral yi mu doonoon léegi amatoo ci football yo xam da ngay défendre kese maintenant on a besoin d'arrière latéraux yo xamné da ngay yek da ngay jouer également sur le plan offensif et Formose Mendy mu bokk c'est un club ça il ne joue pas arrière latéral il joue défenseur central donc l'option Noah Fadiga parait également nek ba nga lu crédible non Noah Fadiga bi nga xamné hein ah donc dem na ca Gantoise da doon jouer ca Brest malheureusement euh, convoqué woon ko fi ñu dafa am blessure après ma may problème cardiaque il Taïnak reprendre, il joue et il enchaîne les matchs avec la Gantoise. Donc, et aussi, c'est un joueur, hein, c'est le profil, c'est un arrière latéral, aussi. Il est bon dans les phases offensives parce que mon ailier le comme papa, nous avons dit nak euh, qui convertit comme on nga que moy donc arrière latéral, donc c'est un profil, sous fait il est en forme. Je précise encore, on connaît en forme, là, su fekké qu'il est en forme, il peut beaucoup apporter à l'équipe nationale du Sénégal pour tamit nek doublure, bu crédible, bu qui Youssouf Sapali Sapali. Il y a également Mamadou Sané le joueur passé par Guédia FC champion d'Afrique ak ñi équipe nationale locale bi jamono ji mu donc Aris Limassol hein, Grèce le un joueur très talentueux hein, carrément également il a ce sens aussi hein, de la progression offensive hein, il défend bien ki xam au donc Sané et aussi offensivement il est bon qui qui nag ci xam championnat Grèce dina découvrir leneen dina ko yokk expérience c'est un joueur boo aussi il peut prétendre. Ah, comme ñeneen ku ci moom wan sa morom rek comme il peut prétendre également nekk aussi une valeur sûre pour nekk doublure Youssouf Sabaly Sabali parce que on l'a vu également au niveau de la du CHAN def na fa yo xam ne prouesse yu exceptionnelle avec Guédiawaye FC également il est exceptionnel te même avec Guédiawaye FC Coupe du Sénégal joué na fo xam milieu milieu terrain dugal na sax bi ça montre que il a une bonne palette hein ki nga xam aussi nag moy Ismaël Spirissar une équation là, parce qu'on a vu que Ismaël Spirissar tamit absence amna am équipe oh, on n'avait pas quelqu'un pour amener, Mungoko par rapport au profil donc aujourd'hui Ismaël Spirissar également comme Nico Youssef Sabaline, c'est un élément essentiel dans le dispositif de Aliou Cissé mais mon it gars yi gis ngeen coupe d'Afrique bi passé Aliou Cissé dafa insister en ah, Kholofi à ak Watford en ah, de forcing fédération bi dugg si ñëpp pour mu daal on a vu que ne match lui passé Aliou Cissé a essayé donc de mettre King nga xam donc Iliman Gaï, mu joué fof et comme je l'ai dit encore une fois Iliman Gaï, beaucoup jouer joué de c'est vrai qu'il est technique il a ce potentiel mais donc sacrifié Iliman Gaï est un joueur qui va être au cœur du jeu Mom, il veut jouer comme derrière euh, un second attaquant derrière le l'attaquant loolu position bi nga qu'il réussisse réussir du côté de euh, fa de United et que tey loolu l'encore ko maintenir parce qu'il a ses automatismes là-bas et bu il peut apporter beaucoup plus de danger notamment sur des seconds ballons donc aujourd'hui il faudrait que donc un attaquant gauche. un ailier gauche de métier Pour les gauche moy gën pour le monde également euh, dit ñeu di remplacer également ki nga qui donc euh, on peut aussi parler du flanc gauche Hein du flanc gauche de l'équipe nationale du Sénégal parce qu'Ismaël Ismaïla Sarr mi sur ci côté droit mais flanc gauche bi il y a un jeune boo xam nank-nank mi équipe nationale du Sénégal je ne dis pas que est dañ ko indi mais Amadou Diouf aussi il peut venir pour. Euh, secondé ki nga xamné moy de Sadio Mané waxna ko aujourd'hui il faudrait également qu'on essaie nank-nank hein, ñu nank-nank ñuy préparer aussi la relève et Amadou Diouf comme nous wa Espagne défé ak Lamine Yamal nek na bo xamné su aussi il est performant en championnat parce que les joueurs en ak euh, génération foot championnat mën na nek une valeur sûre bo xamné tay mën na ñeu nek doublure au niveau de l'équipe nationale pour Sadio Mané pour également au cas où Sadio Mané ñu war ko noppal ci bi terrain war ko remplacer wala également Hein, voilà jouer également les seconds couteau préparer à venir en tout cas Et Amadou Diouf à se prononcer il y a également qui nga Alun Badara Balde je parlais tout à l'heure de de hein, gaucher Mom il est droitier, mais il peut jouer également comme ailier du côté également de King donc Ismail Spidissar. Option, le comme d'options c'est un joueur, il est excellent, rendre le signe signé finalement donc Nice. Donc lui aussi, c'est un fort potentiel, Monaco utilisé. Donc, comme je disais, Sadio Mane aujourd'hui est un titulaire indiscutable de l'équipe nationale du Sénégal. Il occupe le flanc gauche, mais Amadou Diouf également pourrait être xale bi nga secondé mais aussi gangalé au côté de Sadio Mane Sadio Mane ko accompagner encadrer expérience pour que demain vous faites message de Mané jigéen au Sénégal qu'on ait également une valeur sûre Vous xamné tay japp et là, ça commence dès maintenant parce que Coupe d'Afrique bi bu y a beaucoup de nos joueurs probablement comme je dis du mané par force parce que nous, ñoo xam tamit la ligne extérieure. seen d'autres du avec l'équipe nationale du Sénégal. Certains vont prendre le retraite international, peut-être que d'autres vont continuer, mais il faut préparer quand même voilà, cette, éventualité. Donc Alicizé doit aussi renforcer, comme je dis, un ailier gauche. Et aussi un animateur du jeu. Gis Sénégal manque na ko xamné momoy le créateur du jeu Nous ngi ko doon jox ki donc comme je le dis Iliman Ndiaye il a ce profil il est très technique mais c'est un joueur qui il est beaucoup plus à l'aise en tant que second attaquant donc lolo mooy profil de nga xam dina convenir Iliman Ndiaye donc à l'usage, on a récemment Mingi ngi qui ci li nga dossier Sofiane Diop et que ça avance très très bien donc Sofiane Diop bu fekkee ne comme aussi on peut aller voir d'autres joueurs moom dina joueur le milieu créateur de l'équipe nationale du Sénégal bi le lien entre l'attaque et le milieu de terrain du Sénégal donc aujourd'hui il y a beaucoup de potentialité donc pour récapitulatif wax se ko doit chercher un ailier capable de jouer à gauche hein, comme tu tu donc euh, Armand Diouf pour seconder qui donc Sadio Mané un ailier également gaucher capable de jouer à droite comme ni joue la wax jour boo remplacer hein poste pour poste qui nga xam ne donc Ismaïla Spilissar et loolu da ci am solo et aussi li nga xamné donc un arrière latéral une doublure à qui nga xamné Youssouf Sabaly Sabali parce que dafay Nek day am blessure et on a besoin d'un défenseur arrière latéral droite qu'il y aussi dina am possibilité de yéeg hein. un arrière latéral aussi capable de jouer offensivement comme ku ci Noah Fadiga et ñu Mamadou et Kenen. et en même temps aussi il faudrait qu'on est aussi un milieu créateur à l'image de Sofiane Diop la keneen Hein. je ne dis pas que Sofiane Diop est war parce que bien nationaux comme je disais rek da nga leen di laalee bant bu rëy yi donc wut joueurs yoo xam ne war nañ ko mën renforcer donc gars yi lii mooy chantier yi nga xam ne jàpp naa ne Aliou Cissé war na ci liggéey yéen nag joxal toujours un plaisir de vous servir Bonne fête, gars et ba Mais même dem seetaan Baba Show vidéo Monsieur Génération 2000 c'est émouvant c'est émouvant franchement la fay xaw surtout match boobu non contre Nigeria. Sous baaxee si le gars yi su bonee suñu la jaa